ginaaw reportage bi nga xam ne BBC Afrique amaloon na ko fi mu jëm ci welu ma Petrotim ak Alioune Sall tey nag ñi féete ci Benno Bokk Yaakaar daal nañu daje fii ci quartier général bi ngir rek waxtaan seen biir. nag journaliste yi nga xam ne ñoo fi newoon ngir wut rek xibaar mujj ñoo dugg ci biir ndaxte ñu ñu sukkandikoo ci njiitu pale bi nee nañu nag ñoom yooyu journaliste kenn invité wu leen te waxtaan bi waxtaanu biir néeg la. Euh, ñu nemmeeku teewaayu ki nga xam ni mooy Mouhamadou Makhtar Cissé daal di nekk ministre Abdou Latif Coulibaly maître Ousmane Seye ministre bi di Aly Ngouille Ndiaye Mamadou Fall Mamadou Fall Kane bu Petrogaz ak ñeneen ñoo xam ne nag ñu ngi woon fii euh, ci bile saal ginnaaw ay waxtu yoo xam ne nag doon nañu toog fii di ko xaar yaakaar ne bu ñu génnee dinañu joxe ay xibaar ñoom nag bu ñu génnee ku ne dangaa dugg sa oto ànd ak sa gàddikoor dem ñi nekk fii nag ci buntu euh, quartier général bi di ay ñoo xam ne ñooy garde sécurité bi ñoom nag ñu ngi doon dàq journaliste yi ndax nee nañu ne fii euh, kenn waru fi jël benn information